del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yi soo demee ña nga xamante ni peut-être ña ngi leen doon rang wala ña ngi leen doon lii soo demee ñañu jaaroon ci faj leen dañ lay wax kooku xamul dara Lamine sëñ Fallou nee na koo gis sëriñ boo gis ñu koy rang bu ma nee sox faj euh, soxlaay juróomi nit romb ko sëñ moo ko wax mu ne man fi ma toog nii sama buntu jumaa ji fi laa daan galas ku ñëw ma faj sa soxla te doo wax lu dul galas kon nga mën ci déggee ne nit ak loo man man man man man man man mm. nit ñi di rañ sa kër li ci ëpp importance nga jox cër nit ñi ñëw ci yow mm-hmm. cër bi mooy faj gi tegu ci yoon nangam nangam mm. gis nga saas bi ma ëppalee ñépp nag benn la mooy alhamdulilah damaa doylu ci ci ci wàllu ñaan client mosuma wax sooy utiliser alxuraan peut-être mm. da ngay ñaan yàlla. Mm-hmm. su neexee yàlla mu nangu. Mm-hmm. su bañee. nga xam ne bañ mm-hmm. ah, du am. mais ci yan xeet ngay ñaanee suñu borom yan xeetu feebar. wala mit feebar yëpp dañ koy saafara ñun suñ ko waxee loolu dana jaaxal Sénégal yëpp. benn feebar la ñu saafara ci kaw suuf mooy feebar bu nit ki judduwaale. ok bu fekkee néew kàttan la nga judduwaale ko mënuma ci dara ndax programme yàlla la. programme yàlla xam-xamu sëñ Cheikh jotewu ko. ok mais bu dul loolu. bu fekkee néew kàttan la dafay nekk dafay taxawee ci ñett ñett façon mhm. façon bi ci jiitu mooy nit ki su fekkee dafa néew kàttan rab daf ko koy def mhm. liggéey daf ko koy def mooy li ñuy wax takk xala mhm. feebar daf ko koy def ok ñett yi bu mu doon nag ci dañ koy faj ñeenteel bi moom lañu wax ne mënuñ koo faj mooy judduwaale néew kàttan kooku mënuñ koo faj bu fekkee wàllu rab la moom ku wax rab wax lew raña seen ndax su moom El Hadj Abdoulaye Niass moo njëkk tër fii ci àdduna wala ci Sénégal jinne tër ko rend muy jinne di ñuy wax fajur ak majur ba kenn ka ne ko danaa boo ma bàyyee mu mucc danaa def ci sa njaboot loo xam ne fuñ toog di wax danaa def ci ñoom fasaa ñëpp àdduna bi yëpp déglu leen ñaareel ba fépp fuñ jublu fuñ ne tële danañ ne eskay ñes ñetteel ba képp ku dugg ci ñoom tey jinne danañ ko rocc te képp ku dugg ci ci ñeneen nit danañ leen may possibilité ñu dindi ko ci ñooñu mm-hmm. kon ñun alhamdulilah luñ ko maîtriser wàllu rab moom mm-hmm. bëriwut ni ma cee mook fii mm-hmm. loolu na sant yàlla ndax yàlla moo ci alxuraan ne la in zakatum la azidannakum su ma leen defalee sant leen ma ko yow tey sax soo ma mayoon sa jaara bi dama la war a wax jërëjëf Lamine mooy uh-huh. la uh-huh. uh-huh. bu mu mën a doon moo xam tànk yu la moo xam ulcère la moo xam diabète la moo xam tension la moo xam néew kàttan la moo xam lu mu mën a doon ci côté yooyu bu ñëwee dañ koy defal consultation consultation bi gënul lenn mooy li wax listixaar fanaanoo xool ban feebar la parce que mën nga dem hôpital ñu la gisuñ dara hmm. nga faju bay bëgg dee hmm. sa dara du wér hmm. nga ñëw ñu xool ko gis ne ngelawu seytaane la wala da ngaa dëgg liggéeyu jàmbur wala korte bu ñu la sànni la wala extra extra parce que nit dafay nekk ci place di di di am ñu nekk foofa duñ maanaam duñ xool lu leen avancé loo mais lu tardeel kii avancé la ñuy xool bu fukki di gas fukki di suul pax du mën a am kon nga mën ci déggee ne bu fekkee côté feebar la moom yow dama koo fekk. Mm. bu fekkee wàllu soxla doomu aadama yi la. soxla ah, nga baal ma nga baal ma. Mm. Eh, maa ngi ñëw ci soxla si parce que damay bañ fàtte. Mm. la ca maam a koy jël. loolu loolu leer na ci yow mais la ca maam koy jël eh, bi mu amee ba noppi da ngaa dem jàngi. xam yaa ngi tudd Touba te ñaseen nga. yaa ngi tudd yaa ngi tudd eh, këtu këru diine yu bari mais dégg naa li nga gën a fort nga baal ma de mën nga ci li nga gën a fort. mooy am-am mooy xaalis. waaye sëñ bi gars yi ne sëñ bi day luxus xaalis. Mm. gars yi ne sëñ bi léegi léegi léegi lii lool loolu bugg naa tam nga indil ma ci leer. waaw xam nga suñ benn maam dafa mas a toog télé na su ma bàyyi jox na ma secret xaalis. Mm. muy Ahmed Khalifa Niass. Mm. ñeseen néew na ku fay toog ku fay nekk te doo am secret xaalis. bi nga xam ne ñu ngi ko tëggee ci. jërëjëf euh, <laughs> jërëjëf tudd tur waaw. ah non waaw non sëñ bi damaa bëgg damaa bëgg mu tëggee. parce que ci ñu ngi ko tegee tur yaa su bi du bi génnee ci turu ismu ummu Moussa mooy yaayu ummu Moussa. Uh-huh. Ah, yaayu ummu Moussa moom lañu wax ne moom mooy première dame bi nga xam ne dafa jur doom. Uh-huh. yëkkati doom teg ci géej. Uh-huh. doom ji teeree ci palais buur ba ñu oose ko muy nampal ñu koy fay lu gën a neex loolu yow nga jur sa doom ba pare ka ko jur. ña koy nàmpalal ka ko jur moom mu lay fay encore. te yow yaa jur te yow yaa jur doom ji encore waroon a fay ñu ko nàmp ñu koy nàmpal turu mu ngi génne ci yaa suxa biddu mu ngi génne ismu turu jinn ji gën a kii muy chamao ruusin may ruusin tad ruusin xëy ruusin nangam nangam bu juróom ñi ba fukki tureeg ñeenti jeex mm-hmm. kooku duñ ko defal nit doo ko defal nit mukk ci at mi lañu wax te téewul lu mës a ci at mi billaahi wal kitaabi waa loolu loolu da ngay défier yow maanaam da ngay défier mm-hmm. nit koo xamante dafa mel ni man mm-hmm. maanaam amul dara mm-hmm. bëgg koom mm-hmm. bu ñëwee day am ba noppi fay la wala dalay fay laataa loolu lemen yàlla ba muy wax sax waxut ak ñu ñàkk ñi yàlla ba muy wax dëgg la waxut ak sax ñu ñàkk ñi gis nga dëgg la nag boo amul war ngaa mën a góorgóorlu tuuti sax ñu ne sëñ bi am jàppal ci li ñu nàngam mm. lemen man du ma koo xam ne xamul fi mu jëm du ma ñaanal ko nay du ma ñaanal xañaan mooy soxor gis nga àdduna àdduna juróom-ñaar ku soxor moo ci gën a moo ci gën a naqadee avance la hmm. parce que da ngay takk say verre mu rafet sax ñu mu mu war laa apprécier na Lamine Samba de mérito na verre yi mu takk. Hmm. parce que liggéey na jaar na bërëb nangam jaar na bërëb nangam jaar na bërëb nangam fi mu jaar yëpp nag amul fa benn tâche boo xam ne waxal na fa nit lu ñaaw. Hmm. wala defal na fa nit def na fa nit lu ñaaw. kon Lamine mii c'est normal mu apprécier ko mais déedéet daf naan mérito di la soxaree. di la soxore ci xolam bu demee ba xolam mënutu koo muy dem ci sëriñ mm-hmm. bu demee ba sëriñ mënatuñ koo saafara nag mu mu dem ci cadre di yàq sa der mm-hmm. ñaan toujours dafa am fu mu lay fu mu lay yóbbu doo ñaanal kooku yow kooku mënuma koo ñaanal mm-hmm. ki am objectif nga ñaanal ko mu xam fi mu jëm kooku moo neex a ñaanal mm. beneen bi ki nay mm. ñëw gis nga xam-xam du lu yomb la bi ñun dañoo gapparandiku woon doon jàng ci duuda yi ah euh, saxaar si daan dugg ci suñuy suñuy bakkan yi ñu ñuy dóor maanaam céy la mu am ña ko xam ne tey la mu daj cey la mu daj comme ni ko waykat bi waxee Serigne Touba cey la mu am mm. waaye cey la mu daj mm. parce que tey tëbul rek am li mu am Touba bi jël nañ ko yóbbu ko wiiri wiiri yóbbu ko maa yomb yóbbu ko nangam yóbbu ko nangam ba indiwaat ko ak taat biir ñu ngi koy indiwaatee sax ñu ngi koy nootaat ne ko bu mu génn bu mu def nangam heure bi lañ la may nga génn heure nangam waaye tey boo gisee màggal gi gis lu mel ni Masaalikul Jinaan gis lu mel ni jumaa Touba et cetera kon da xam ne moom ndeke la lam bëggoon ko xam na objectif bu mu bëggoon. Mm. comprendre nga kon kooku moo ku mel noonu exemple moo neex a poussé ki xam li mu bëgg beneen bi ci topp mooy du ma defal mukk ci kaw suuf mu ne ma sëñ Cheikh li ma defal amut. kooku kooku ndamuwuma ci waaye cër cër mu am ci suñ borom la. Mm. damay wax ne nga bëgg yàlla yàlla bëgg la moo ko gën. Mm. tey nga bëgg président de la république mag Sall na la bëgg rek nga xool. jarul nga koy bëgg sax na la bëgg rek. bu la bëggee dañ nga am audience wax ko li nga soxla wax ko li nga bëggee bu boobaa rek loolu daal di sotti mm. kon nga bëgg yàlla yàlla bëgg la moo ko gën mm-hmm. kon ñun cër bi ñu am ci yàlla ameewuñ ko ci lenn nag lu dul taqwa ragal yàlla mm. nangoo xam fi ñu teg suñu tànk aussi tamit xam liy faj soxlaay jaam bii ñëw ci ñun mm. ñun néew nit ñëw ci ñun néewul tak te dañoo dañ dul ko indi maanaam maanaam yow da ngay diagnostiqué diagnostiqué bi mooy nit du ñëw rek nga commencé koo ñaanal te duggaloo ko xalwa non dugg xal loolu loolu beneen partie la maanaam nekkul da nga koo listixaar. listixaar gëstuwul ko. waaw mais lan mooy différence entre dugg xalwa ak euh, listixaar. listixaar bari na euh, mi ngi mel ni tey euh, nu mu ko mën a expliquer sax mi ngi mel ni différence ministre. premier ministre ak député. ok waaw noonu lañ noonu lañ. noonu lañu noonu lañu kawal président all right maanaam fekkee du ko xalwa la ci a mën a jege sa borom. ok bu fekkee nag franc la kooku amul jege sa borom kooku ay raw xaaju yu ñoo lay indil. Hmm. wa ilaa ay ay mbir yoo xam ñoo lay indil soxla jaam bi comme tey Lamine dafa ñëw pour xam xam maam.

toujours nangam toujours problème bi day gën a yokku toujours oto yi mu doon jaar jaar toujours kooku nag dafay yeewoo mu ne sëñ bi dugal ma xalwa xoolal ma lu xew fekk bu duggee xalwa fekk yow mas ngaa tooñ benn nit boo xam ne sax taxaw na ne yàlla ma yàlla atteeg yow kooku ñaan moo tax li lay jox mooy baare kooku léegi da koy wax ne ko ah yow de mas ngaa tooñ nit mu ñaan la nangam waaye nag yàlla du baale bàkkaaru jàmbur yàlla mën na laa baale boobu waaye du baale bàkkaaru jàmbur léegi nag loolu li koy mën a teggin mooy soo mënta gis kooku del bëri looy def astaghfirullah bu dee amoo taamu nag sëriñ bi moom xanaa sa tur ak sa turu yaay ak turu at yi nga am di la ko zikkaral ci astaghfirullah parce yàlla moo xam ne astaghfir rabbakum innahu moo ne bépp bàkkaar bi ngeen leen hmm. ñu ne ko ni ngeen mooy jéggaloo mooy dee leen ma jéggal hmm. parce que tey nit ak lu foor foor foor foofu la yàlla uti ak moom pour bëgg laa wax ne la loo foor foor foor dell dellu boo tooñee boo jéggaloo ma baax jeex kon loolu lañu ëppale ñeneen ñi bi ci des mooy wàllum faj mi la jaaxal ba jaaxal ñépp ak wàllum ñaan gi comme ni ko gars yi waxee muy am loolu yàlla xam ne man du ma ci def sa attention du ma koy seetlu nit ñi ñooy def seen ñooy am seeni mbaax euh, comme yenn chute yi nga xam ni dañuy topp suñuy vie te duñ ko yëg dem jël ay nit ñi nga xam ne ñaan nañ parce que dañuy ubbi seen compte yenn chute yi dañuy seen compte def seen numéro ñu ñuy def ay témoignages ñu di sànni fii di sànni fii di wax ci ñun su ko defee ñu dajale lépp ne il fallait que ñu toog ak seen cheikh léegi ci piir toog ak sëñ Cheikh bi nag léegi pour pourquoi ñu war a toog ak moom sëñ Cheikh sëñ Cheikh ne waaw baax na wala nàngam léegi nag ñoom ci seen biir am na ci ñoo xam ne dañu am collaboration ak yow laaj la en tant yow ngay dox ci biir dëkk bi xam lu bëri ci dëkk bi xam xam sëriñ su ñi man ak ñi mënut ñu ne la Lamine diwkat dañoo bëgg a def ak moom plateau bi ñii ñoo def ay témoignage ci moom léegi ñu bëgg a xam nag ndax yow loo xam ci moom nga ne leen yow tey ñii de li ñu wax ci sëñ Cheikh lu ko raw man xam naa ko toog ak moom hmm. waaye wax nag day soog jot tey kon il faut ma toog ak moom li ñuy wax lu ko raw ma xam ko ci moom man ma wax ko man tamit hmm. ma waral plateau bi waaye yàlla xam ne ne ki ma boole ak moom bu <laughs> ma yegg ci turam maa ngi koy siyaare bu wér a wér a wér mais kilifa diine bu mag la hmm. ci ci ci réew mi ku mag koo xamante nit nii ngeen baal ma nit ñi dañuy dañuy dem ci moom ci barke maamam yàlla def yàlla mu boole ma ak del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar